rappelle bien kuy liir donc da ngaa tiim dara di wax. Mhm. donc te ministre de l' et des mines ça n' existait pas au 1er décembre 2016. donc dañ ko tasoon. waaw non tasuñ ko woon c'est-à-dire que dafa amoon ministre de l' énergie et des mines ensuite ñu génne énergie def industrie et mine. donc bu puisque li mu lire énergie et mine moo ci ne mënut a nekk man ñetteel ba aussi te ne mooy li ëpp solo. Mhm. lettre boobu musta am. maanaam du wax sax que kii la musta am musuma bind lettre Mimran mosuma jot tontu Mimran lettre boobu amul kon moo tax ma jàpp ne bu koy wax maanaam bu seetlu woon tuuti li mu wax dina ko xool bu baax dama gëm ne dañ ko tegal ndëgg sërëx malheureusement mu mu daan mais mais comment un avocat. Euh, ah, averti man nag ku mel ne euh, maître Moussa Diop. bonne question euh, ñu tegal ko ndëgg sërëx ba mu mën a. taxaw tenir ay accusations et même après cela dafa jàpp ne que il a des preuves de ce qu'il avance. génn ci ah, benn loolu lépp gannaaw gannaaw loolu am na. man duma fi nekk di spéculer parce que wax dëgg yàlla heure bii nii. Mhm. muy moom muy man xam nga lu ñu waroon intéressé mooy toppatoo suñuy parrainage toppatoo suñu dossier dem présidentiel. mais gannaaw moom dugguñ ci loolu man du may possibilité di ci perte temps bi nga xamee ni bii jàpp naa ne sama honneur. Mhm. quand même touché na ko tey dama am njaboot dama am également ay ay ay militants yoo xam ne dañoo am ci man yaakaar li ma jàpp rek mooy gannaaw wax na loolu te am na ay preuves jafewul tout simplement donc gannaaw porté naa plainte tey dem naa def sama audition li ci des maintenant yoon na koy leeral li ma bëgg rek man mooy mu setal sama der tout simplement. d'accord da da nga jàpp ne que parce que yaa ngi koy wax tout à l'heure sortie bi euh, gis nga ne que yow yaa fay candidat peut-être ñu jàpp ne c'est un candidat qui s'adresse à un autre candidat mais selon vous yan intérêt quelles sont vos relations ak maître Moussa Diop. wallaay on a de très bonnes relations. ba mu war a jël ah, yenn loolu bu amee occasion bu ñëwee fii nga wax ko ko. parce que gannaaw man waxuma moom mënuma ci tontu parce que xaw ma lu tax. amu leen antécédent yoo tax mu mën a parce que. pourquoi vous pensez que non je sais pas vous êtes candidat mais parce que bu doon loolu gëm naan du ci am. mais du mu ci sori. gannaaw moom nee na am nay preuve man nee naa damaa bëgg a seetal sama der bu amee preuve bu nee mbaxane doonee benn dana ko teg. donc vous affirmez wala yaa ngi confirmer ne que amul benn preuve. dama ne la lettre mus sa am. musuma bind Mimran musuma recevoir lettre Mimran xaw ma Mimran lu mooy dégg ko ni nga koy déggee ci bi. d'accord aw ma ak moom benn familiarité bu war a justifier loolu mais c'est pas ça qui est important gannaaw moom nee na jot na lool léegi dina dem ci yoon rek mu génn ko vraiment man dama jàpp bi ma ko njëkk a dégg dama jàpp ne wallahi lazim dama jàpp ne dañ ko dafa juum donc dafa juum jéemuma ci wut leneen nag lu spécial wutuma ci xaalis wutuma ci leneen lu mooy ne setal sama der benn setal sama der bu reconnaître que moom def na erreur man mën a arrêté procédure bi bu doon bu ko sama sago sax gannaaw ñun dañuy dem élection te jàpp naa ne moom it bëgg na ne dafa dem élection même bu bu ma bu ma yoon doon déggal nañ bàyyi ba élection passé ñu xool la ñu traité dossier bi parce que loolu mooy li am njëriñ. pour lui permettre mu mu mën a. pour lui permettre mu bokk. mu mën a bokk ci ah, élection yooyu la. mais euh, enfin. c'est toujours la question qui demeure sénégalais yi ñoom euh, ce qui les intéresse aujourd'hui mooy transparence par rapport ak seen ressources euh, euh, naturelles yi lee c'est bien nga porter plainte pour que ñu mën a xam exactement ce qui s'est passé mais ba tey ça reste flou peut-être ci ci ci ci bopp ñenn ñi ci sénégalais yi parce que pourquoi à l'instant T Euh, euh, maître a besoin de s'adresser à vous et non pas à un autre candidat. Oh, son mais, adversaire mais loolu nag moom man du maa ciy tontu soxna si. loolu c'est peut-être euh, candidat du pouvoir mais pourquoi. Ah, loolu laa foogoon dama ne. Mhm. man loolu duma ci tontu négéni moom moo ci war a tontu parce que moom moo moo tëgg tamam moo koy tullil boppam man mënuma ci tontu dama ko xëy gis ko ni nga ko gisee ci réseau sociaux yi. mais gannaaw man la ñu laaw la ñu la ñu euh, disons diffamé mhm. man ma dem porter ji plainte man ñu porter plainte kay ne ko boo amee li ngay wax génne ko te man mën naa la wax ne mënu ko am ndax lii ma la wax nii alors euh, dañoo ne ça pose beneen question muy question transparence maa ngi koy wax tout à l'heure euh, l'article 25 de la constitution dafa ne ne que les ressources naturelles appartiennent au peuple alors peuple boobule euh, peut-être des fois dañuy soxla transparence par rapport à ça aujourd'hui on se retrouve que ñu euh, euh ñu au devant euh, de la scène que diamant Euh, euh, existé na peut-être fii ci Sénégal même bu fekkee ni que en 93 euh, sous Abdou Diouf amoon nañu yenn information yooyu la mais sénégalais tey soo leen yeewoon ne leen waxu jamono duñ ci duñ ci duñ ci àddu. est-ce que problème mu transparence li ma lay expliquer mooy fii mu toll nii jamono feeñagul ci Sénégal jamono juñ mën a exploiter man en tant que ministre de l'industrie et des miine mm-hmm. joxe naa benn permis d'exploration. de diamant mm une société qui s'appelle 2SH Hardware and Software benn société boo xam ne benn sénégalais moo ko moom jox naa ko permis 2016 mu war a seet diamant 2016 ba 2019 man 2017 laa fay génn te ba tey jii dégguma ne gis na ko waaw man li ma la mën a wax man en tant que responsable de secteur boobu mooy ba ba ma fay génn kenn wanewu fi ne jamaa am na Sénégal am na ay études yu ne amoon na fi génn ne jamaa feeñ na euh, euh, te jamaa bi ñu wax ne feeñ na dañ ne ndox moo ko fi indi mhm. maanaam mën na feeñ fu sori ndox mën na indi comme ni ndox di indee saleté la mën a indee euh, jamaa mu ñuy wax alluvionnaire wala ñu indi or wala nangam loolu day am donc mais miinu jamaa fii amul ci Sénégal d' accord indice yi ñuy wax. mooy li ñu indi mooy li ma la expliqué. d' te loolu aussi ñi nga xam ne ñi ñoo ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu. Mm-hmm. ñoo ko wax. waaw donc ñooñu aussi yaakaar naa dégg ngeen ci li nga xam ne lii wax nañ ko ci affaire jaaw jamaay donc vraiment loolu moom leer na maintenant est ce que dana fi am est ce que dana feeñ mënuma ci assurer man li ma xam rek mooy ba boo ma fiy jógee daal feeñu te gëm naa ne ba tey feeñu. d' accord mais jàppoo ne que problème mu transparence am na ci mbir yi. le problème mu transparence xam nga d' abord il mhm. faut aussi quand ñu reconnaître benn mbir euh, gis nga man maa njëkk a nekk ministre de l' industrie et des mines mhm. ñun bi ñuy bi may man maa bind lettre pour Sénégal adhérer ITIE boobu du woon force melutoon nii benn avant avant sax ñu ITIE bi di mel nii mu mel maanaam initiative bi ñu jël pour la transparence mhm. ci industrie extractive yi avant muy mel nii muy mel bi am na benn période coow am ci loolu. man maa jox instruction directeur des mines ne na jël tous les contrats. miniers mhm. ñu dugal ko dans le site du gouvernement. coow loolu bañ ko dugalee ca la coow lu arrêté. tous les contrats miniers kon kenn ku ci nekk concession bu ci ne boo ci bëggee xam da ci xam dara mieux parce que booba mine yi la doon wax ak énergie tout ce mhm. qui était contrat pétrolier c'était déjà en ligne parce que boobu dafay dugg dans le site du bi ñu defee également ITIE ITIE également c' est un site accessible par tout le monde gis nga tey jii bu ñu la accuser dara ci mine ci mine wala boog information boo xam ne bii disponible na da ngay dem ITIE rek maanaam ITIE état moo fay yóbbu ensuite société minière yi exploité bi nga xam ne bii def na boo xoolee dugg ci site ITIE point sn da nga gis les rapport ITIE de 2013 jusqu'au dernier rapport 2013 la commencé. donc 2013 ba léegi ni rapport yaa ngi foofu boo demee xool ko gis nga ker bi waa ji waxee euh, jamaa bi. Mhm. damaa dem xool yi man sama jëm bopp ne mais il faut ma xool euh, euh, li muy wax nii bu fekkee ne 2016 la ça veut dire que war na nekk ci rapport 2016. Mhm. ma dem xool le rapport 2016 effectivement ci laa gis ne y' a ce permis là qui était donné à l' benn permis boobu moo ci amoon. exploration encore mooy maanaam jox nga nit këyit ne ko na wër ndax am na fi mu bëgg am na jamaa. donc loolu. Mhm. actuellement ITIE chaque année dañuy publier rapport bi wax ci ñëpp dégg li nga xam ne bii léegi lépp luy xaalis bu dugg ci ressource yi dañ ko dañ koy leeral ku ci joxe da nga wax ne joxe naa te yemuñ ci leeral rek de ITIE dafay def li ñuy wax réconciliation c'est-à-dire état day wax ne jot naa nangam entreprise bi ne jot naa nangam ñu confronté ñoom ñaar li ñu wax collectivité yi ku ci jot ñu confronté li nga jot depuis lors d'ailleurs boo xoolee depuis que ITIE est presque y a de coow ci ci ci wàllu euh, ressources yi. Hmm. en tout cas ci wàllu transparence li ñu des nag moom lañ lay wax rek mooy li am. boo xamee parce que bëri na ñoo xam ne li ñuy wax tamit xamuñ ci dara te loolu wax ñu gëm waaye loolu moom mooy fa ñuy fa fa li ñuy wax maanaam ITIE mooy fa ñuy dajalee lépp li information ki nga xam ne kii mooy jot na lii la jot ki nga xam ne kii jox nañ ko neen lii lañ ko jox. par rapport justement ak ak ressources yi moom moo tax xëy na euh, sénégalais yaa ngi koy ñu ci bëri comprendre ñu euh, peut-être ñu chercher la bonne information mais de plus en plus quand même ñu ngi gis ne que ay nit ñu ngi taxaw di dénoncer euh, justement yenn yi ci ci ci ci ci fini déjà pétro affaire Petro-Tim on s'en rappelle encore et foofu déggoon nañu l'ancien premier ministre wax un faux rapport toujours ci sa nom qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela moom moo rek si ñoom ma dëkk rek li ma la mën a yëgal rek li ma la mën a wax man en tant que ministre lépp lu ma signé sama responsabilité la du ma ci deltu ginnaaw li ma nekk ministre yëpp début ba fin mhm. lu ma signé lu ne dama koy assumer nee naa la lii maa ko def transparence man maa njëkk man ak Mimi Touré avant nag di xew wane suñu alal man bi may njëkk publier sama al sama am-am boobu OFNAC amul boo demee dem Google léegi nii nga seet patrimoine Aly Ngouille da nga gis ne juillet wala août 2012 lañ ko def moo génnee sama alal yëpp début ba fin te boo fa demee xool ne amoon naa alal. amoon naa laa wax parce que léegi amatuma ko daanaka. ah bon waaw. mais mais fin bi dinañ ci patrimoine boobu le waaw dama ne la boobu OFNAC amul.